asalaamaaleykum téléspectateur seen STV amaat nañ contentement dajewaat ak yéen fii ci euh, suñu site bi di wax ne euh, dañoo amaat beneen actualité boo xamante xew na fi teeg ñu gis ne fan yële passé gisoon nañ benn artiste bu mag boo xamante ne génn na fi jour anniversaire góor jigéen mu sol fi t-shirt góor jigéen di promouvoir euh, góor jigéen ñi barke démb aussi ñu gis fi benn artiste boo xamante ne amul sax les moyen pour tëgg sax euh, soraano dem si Cissé dafa loué salle boobu ngand boo xamante ne artistes yu mag ñu ngi fi ci réew mi mënuñ koo loué moom moo koy loué ba pare suy sol ay yére góor jigéen tey lañ bëggoon waxtaan ak suñu naataangoo bi nga xamante ne mu ngi fii donc euh, sëñ bi ñu ngi lay dalal di wax ne liñ bëgg a xam mooy que euh, Sénégal ak lii xew nii fléau bi di xew mii lan la lu xew lu xew sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di wax ne dañuy santaat yàlla bu baax di am contact ak mbégte si laaj bi ngeen xamante ne ni laaj ngeen ñu ko yéen waa seen STV di rafetlu tamit bu baax tamit seen liggéey bi ngeen di liggéey di wax na tey indi ngeen nit ñi ci actualité di wax ne lépp loo xamante ne nii rek mu ngi doxal réew séentu nañ ko ci lii dara xew ngeen seeti borom xam-xam yi ngeen laaj leen ci donte fii dañ ne euh, dëkku jullit la diine gi moo fi ëpp doole te gis nañ ne jëf yi nga laaj fii yëpp ñu koy def ñëpp ay doomu islaam lañu ay doomu jullit lañu seen papa yi di oote woon ne ñoom ay jullit lañu te ñu ngi fësal bon te comme que nag ñoom dañoo nekk ci fësal mbon di ko wane kon yaakaar naa ni yéen tànk yi ngeen def ni tamit loolu la yalla namu ci julit ndax yoonte bi wax na ni bo len gisee lu bon mu ne na ngeen ko dindi ci seen loxo loxo nak xam nañ ne tay mom gouvernement bi moko man gouvernement bi mo meuna gis lu bon dindi ko ci dolem waye it euh, mu ne bo len ko meunu dindi seen dole na ngeen ko dindee seen lamine bo len ko meunu dindee seen lamine ngeen nakarlu ko seen xol ñun nak yalla baxé nañu xam nañu bi nga xamantene moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te yalla wax na ni mom reference la tay ci kaw suuf te yaakaar naa ne ñi nga tuddu ñep di def lu bon di fessel lu bon ñoñu nga xamantene ni ñom tay jeunesse bi ñom lañ teg bët pour jox len ne ñi ñoy suñu reference di top no sen solo sen lepp kon ni loolu buñ ci wax tey euh, dañ ci andal mbekté ak kontante lool pour fessel mbaax nit ñi xam ne mbaax mi ngi ci kaw suuf ñi ñi xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla suñu borom ci mbaax rek la oote ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar góor jigéen googu nag bu fekkante ne dañ cee bëgg wax dañuy wax ne amoon na amoon na ci jamono yonent yàlla luut bi nga xamante ne nii amoon na ci jamono yonent yàlla luut mooy góor yi nga xamante ne nii seen buur bi fa nekkoon góor bi mooy moom rek moo doon seyal foofu ay góor te gis ngeen loolu ba mu amee boo xoolee xisa ci góor jigéen ci islam euh, yàggul bëriwul ndax yàlla da koo réglé si saa si da koo réglé indi leen xalkaande gu bon bono bono bon ci euh, ñoom ba ñi nga xamante ne nii sax dañoo wax ne ba nga xamante ne yonent bi ya, yàlla mi ngi xalak xeetu yonent yàlla loot am na ñuy wax ne sax lot est-ce que bokk si parce que yàlla daf ko waxoon ne ko bu alak sa waa dëkk ñi nga xamante ne ay góor jigéen lañ mooy góor buy sëy ak góor jigéen buy sëy ak jigéen bul gestu kon boobu yàlla mu ngi ko bëgg wax ne ko xalak bi leen di xalag kon nekk na xalag goo xamante ne ni xalak métti la te tey gis nañ ne yàlla rëbb na góor bi nga xamante ne ni day jigéen jigéen te loolu tey bëri na tey fii si suñu dëkk bi tey da gis góor goo xamante ne ni boo ko gisee rek yow pour nga xam ne kii góor la il faut mu wax wala nga gis ko ndax colinam bu waxee boo ko gisul da ngay foog ne kii jigéen la il faut nga gis ko xool ko ndax lan ndax waxam baatam manière am jëfinam tey suñu jeunesse bi tey booy boo gis wala xale boo gis mi ngi rosaawu fii mi ngi ni ngi wax naan ay xolli tuñ mi ngi yéen seen yéen yi ñu ngi ko dagg ñi nga xamante nu ñuy watoo ah nu ñuy solo manière bu ñuy doxee takk seen fii te yooyu yëpp yàlla diggu ko góor pour mu mel noonu góor da ngaa war a mel noo xamante ne ni tey ku la gis rek wala foo waxee wala foo doxee rek ñu xam ne góor mooy dox waaye góor goo xam ne fu ñu séenee rek ñu xam ne kii ñuy laam-laamee jigéen la wala góor kooku nañ ko moytu baaxut wala jigéen goo xamante ne fu ñu ko séenee ñu ngi laam-laamee góor la wala jigéen ñu ne jigéen boobu tamit baaxut yàlla tamit rëbb na jigéen gi nga xamante ne nii de góor góorgóorlu ndax jigéen moom euh, baat bi nag waxuñu ko ci liggéey li la yàlla waxee yooyu waaye sa tolin jigéen boo xam ne yaa ngi sol comme góor yaa ngi saf góor yàlla nee na dafa rëbb jigéen boobu te rëbb yàlla moom fu mu ko defee rek day dal kon ñi nga xamante ne nii tey ñi ngi sol ay yére góor jigéen di ko teg ci chaîne bi di ko wane ñooñu mënuñu doon référence te ñi ngi lance appel di wax ne gouvernement bi nañ ñu dimbali ci loolu euh, ñu dimbali ñu ci li nga xamante ne ni tey euh, ñooñu ñu ngi koy yàq tey si askan wi ndax euh, da ngay gis ne loolu yëpp rek boo xoolee ba ci biir am na luy làkku ci ginnaawam loolu di làkk ci ginnaawam nag xamuñu ko waaye am na li nga xamante ne ni tey ñooñu am na ñu nekk seen ginnaaw di dooleel li nga xamante ne ni mooy mbirum góor jigéen boo xoolee ba ci biir loolu mi ngi ci kon ñu ngi ñaan gouvernement bi tamit loolu yëpp ñu dox si ñun nag suñu làmmiñ la ñor ak di ko naqarlu suñu xol ak di tek li nga xamantene Tibi ni yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam mu ngi koy wax ne bu ñu gisee naqar nañ ko wax te loolu naqar la goo xamantene ne tey suñu kilifa diine yépp war nañoo taxaw wax si ndax réew mi mi nga bëgg a ndax xale yi tey nekkuñu ci ludul rek li nga xamantene ne ni tey mooy li xomaatal seen xol yi ci loolu rek la ñu nekk te yooyu yépp tey média bi rek moo koy wane tey média bi am na ñu jug di def lu baax waaye am na ñoo xam ne dañoo jug tamit di fësal lu bon ba tey ne ñii di fësal lu bon ñooy ëpp doole sax ñi nga xamante ne nii tey ñi nga fësal li nga xamante ne nii lu baax la kon loolu lañ amoon lu ñu doon wax bu fekkante ne am na tamit euh, beneen question buñ ci war a waa kilifa gi buñ jegee ni nga waxee euh, fësal nga ay points yu bari waaye nag dañuy bàyyi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi déglu. ñoom tamit ñu def seen analyse waaye li ñu bëgg a xuus rek da nga kaa wax léegi sa biir wax nga ne état bi waaye mais est-ce que solution bi mooy xaar état ndax suñu constitution nanguwul wàllum góor jigéen nangu ko ci réew mi te ñoom gis nañ ay nit di solo comme jigéen donc mosuñ cee wax ñoom ñoo leen di sécuriser ñoom ñoo leen yoreel seen sécurité parce que boo xoolee euh, anniversaire u Ouzin boobu noonu noonu jour boobu ñu ngi gis ne que euh, euh, waa gendarmerie ñu nga fa woon di escorter donc te man daal li ma yem ndax est-ce que population bi dañoo war a xaar euh, gouvernement bi pour mu xeexal leen wala boog ban stratégie la jullit ñi war a am wala boog ñi gëm yàlla ban stratégie la ñu war a am ndax ñoom am nañ seen stratégie ñoom ñu ngi lal seen i plan donc yéen tamit yéen ñi nga xamante ne ay borom xam-xam ngeen léegi yéen ban matuwaay ngeen war a mën a teg pour orienter jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñu ngi réer nañ ndax actuellement nii képp ku am doom war ngaa tiit ndax dangay gis comme ni nga ko waxee sa biir wax góor ñoo xamante ne léegi xamatoo lu ñu nuroo buñ la rombee ñu ngi sol ay pain yoo xamante ne doo xam ndax góor lañ doo xam ndax jigéen lañ donc tey islaam wala boog jullit ñi nga xamante ne wala boog ñi gëm ñi am religion nekk Sénégal ban stratégie wala boog yow lan nga yaakaar ne buñ ko tegee mun nañoo xeex fléau bi nga xam ne moom mooy góor jigéen. waaw loolu loolu moom liñ ciy wax mooy yaakaar naa ne tey Sénégal moom ku bëgg a dëng rek yaay dëng waaye lépp loo xamante ne ni tey ñu ngi koy teg ay stratégie pour ñi ñu jub rek ñu ngi koy def suñu kilifa diine ñu ngi def lépp bu wax jotee ñu ngi wax bu jëf jotee ñu ngi jëf kon euh, yaakaar naa ne tey ku bëgg a bon rek yow sa yoonu sa yoon nga jël bu ko bon waaye tamit dañuy wax ne ñun duñu nangu nga bon yow bu ko bonaaleeg ñi ci des bu dinañ xeex ak yow ci loolu yëpp xam nga mooy xadis bu ma njëkk a wax sànq rek. dafa am loo xamante ne ni tey dañ ne Sénégal xaw ma pays laïque la xaw ma nuñ koy waxee jullit ñeeg yéeféer ñi tey ñoo ko bokk loolu lañu wax waaye tamit ñaari religion yooyu yëpp kenn nangul ci góor jigéen sa côté amul du ci bible bi du ci alxuraanu karim amul kenn kuy nangu jigéen buy góor góorlu wala góor boo xam ne da jigéen jigéen hmm. amul kenn ku ko ci nangu kon yaakaar naa ni ñoom it dañoo war a taxaw gouvernement bi dañoo war a taxaw xeexle loolu tey ñi nga xamante ni ñooy seen askan sénégalais ñoom buñ dee tamit dañ ne wax ne ñoom dagaluñu loolu yaakaar naa ni loolu wax bu tegu si suuf rek la ndax tey ñu ngi teg seen bët li nga xamante ne nii tey góor jigéen ñi ñu ngi koy def fii si Sénégal ñu ngi siy teg seen bët te dindiwuñ ko te waxuñu ci ñun nag liñ ci mën mooy dañ ci wax indi delloowaat jeunesse bi xamal na leen ne ñii duñu ay référence xamal nañ ne ñii tey ngeen xamantene ne tey ñu ngi roy ñu ngi leen di roy ñoom ci li ñuy amee seen alal te lewut ñoom ñu ngi ko ci amee léegi yow mii di roy wali Seck wala yow mii di roy kii di Ouzin Keita yow ana lan nga am ana lan nga defal say wajur ana lan nga yow tey nga indil sa askan ana lan lu baax loo xamantene ni tey dañuy leer na tey tey mun nga ko def sa njaboot wala mun nga ko def say rakk wala say mag amut kon euh, ñooñu ñoom dañoo nekk ci seen mbir du dox ndax tey ni yàlla amee ay ay ñooñ noonu la iblis amee ay ñooñ ñooñu kay dañ leen di ber ci côté boobu rek tey wax ne tey ñun ya, ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine borom xam-xam yi ñu ngi ciy wax oustaz yi nga xamante ne tamit ñoo ne ci télé nañuy wax nit ñi dëgg nañu jàngale xamal nit ñi te bañ a maanaam bañ a bàyyi xel seen poos yi te ñu jàngale wax li li nga xamante ne ni tey loolu la yonent bi wax nañ ko def ñu def ko ndax tey tey ustaas yi da ngay nekk ci télé yi tey télé yi nga nekk war a wax nit ñi ne waru ñoo góor ñi waru ñoo takk or waru ñoo takk jaaro te chaîne boobu nga nekk mi ngi maanaam am na benn kii boo xamante ne centre commercial bi koy bu koy dind bu koy teg pour mu tegle or a ngi fii wala nangam sàngam ay or góor ak yooyu mu ragal see wax ñu dàq ko te pourtant islam dafa tere loolu kon waxtaana leen loolu yëpp nit ñi xam loolu ci loolu yëpp da gis fii ustaas yi tamit am nañ ci responsabilité dara day xew ñu war ci wax duñ ci wax dara day xew ñu war ci wax duñ ci wax te loolu tamit ah, responsab responsabilité boo xamante ne ni ñoom dañ ko gàddu war see doxee euh, war ci li nga xamante ne ni noonu la ko yonent bi doon defee kon yonent bu demee ba xare yonent bu demee ba xeex Euh, am na benn kilifa diine boo xamante ne dafa dem Égypte doon waxal Jamal Abdel Nasser ñu ba ñu xamante ne ni négocier nañ négocier nañ ba pare dafa na ko sama doom ñi nekk foofu noonu yëpp jël leen ngeen boole leen ci armée bi kon ainsi nag li ci des mooy nañu xeex nañu xeex te ko diine la fii Sénégal ci wali yàlla la bokk tey du ñu lim benn loolu la digal Abdou Jamal Abdel Nasser kon euh, kon loolu yëpp tey. Euh, fii nag Sénégal mooy dëkk koo xamante ne boo fi ootee pour islam yaa yaa ciy des ànd ak des kooku da nga ciy gëm yàlla ñëppay dellu ginnaaw mujjee doon naa féq kon nag ñun nii rek lañu am pour wax si wax ne lancé message gouvernement bi wax ne ñu jàppale tamit ci loolu nañ ñu dimbali ñu bàyyi xel si suñu jeunesse bi bàyyi xel li nga xamante ne mooy suñu ndaw yi euh, te ñu xam ne euh, ñooñu daal duñu ay référence euh, loolu lañ amoon daal nuñ ci doon yokk. waa kon jërëjëf sëñ bi ñu ngi rafetlu sa teewaay di rafetlu sa waxtaan bi. di wax ne li nga fi wax yépp yàlla nañ ko dégg te buñ ko déggee yàlla nañ ko jëfe donc euh, li nga wax yépp la sëñ bi man damay def conclusion bi rek ñu tëj donc euh, li ma bëgg a wax foofu mooy que euh, damay dégg ñu bu lu bëri nit ñi di ko wax di faral di wax naan diw dafa baax di fa baax dafa baax mais man baax googu noonu man bu dee da ngay alalu alalu nit ku bon ngay jël ah di ko ci tagg loolu du alal bu baax mm-hmm. donc Sénégal yi nañ bàyyi loolu te bàyyi ne diw dafay baax dafay maye li may maye na xam nga fu mu ko jëlee yow bu la leeree ne diw day sàcc ñëw may la te nga xam ne képp koo xam ne sàcc na jox la nga xam ne dafa sàcc yéen a yéen même até ba pare tey nga bëgg ñëw kooku nga valoriser ko maanaam siwal ko naan li muy def dafa baax ñun Sénégal yi nañ delluwaat suñu xel yi ci yàlla te xam ne ci yàlla lañ jóge ci te ci moom la ñuy dellu donc te wax ne gouvernement bi il est temps ñoom tamit ñu xippi xam ne yow mal xiyaam am na mën nga nguuru fi de waaye nag nguur gu dul jeex mooy nguuru yàlla gi te yowmal xiyam dinañ dajeeg suñu borom te kenn ku ne yàlla dina la laaj la nga doon lam la dénkoon nan nga ko doon sàmmee te bu boobaa ah bu doon nekkaloo ci li yàlla digale woon nar naa metti ci yow kon yàlla nañu yàlla aar yàlla nañu yàlla sàmm donc fi la ñuy yemalee suñu kàddu yi di wax ne nag euh, ñu bon ñi ite yi ñuy def ba siwal seen mbon ñun de ité boobu la ñuy def ñun donte dañoo néew doole dinañ ko def ba siwal suñuy mbaax donc wasalaamaaleykum ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm dina yàlla ñu yàlla aar ñun ñi nga xamante ne jël nañ yoonu siraatikal mustaqim te yal na ñu yàlla daqal seytaane yàlla bu ñu dajeek moom ci barki yonte yàlla Muhammad ndax Sénégal ñun ñëpp a ko bokk bu rafetee ñun la bu ñaawee ñun la kon nag nañ jóg xeex mbon wasalaam